salaamaaleykum waa mbokk internet bi rawatina waa Grand Théâtre TV te nag ñu ngi ñëw seet si koo xamante ne nii mën nañ ñu dootuñu ko présenté parce que mën naa ne àddina bi ñëpp xam nañ ko muy Cheikh Issa Ndiaye borom jaasi ji gën nañ ko gis nag si wàllum internet bi temps yi moom dafa lëlu léegi dañ koy bàyyi mu présenté wu salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di leen tatagal di leen wàccee seen wàccuwaay macha allah Bangra Théâtre TV ñoo leen di ziar bu baax di leen ndokkeel lu bëri bëri di wax am nañ kontaante ak mbégte bu rëy rëy si taw bi nga xam ne teew ngeen ko fii macha allah ñoo leen di ziar bu baax a baax. rajo gisee bi nag du dara dañoo nekkoon di si ay tournée rek aussi nekk maanaam si kurus di jaamu yàlla aussi nekk si ay xalwa ak ay riyaada loolu moo tax ñu ko gisee bu bëree bëri bëri. waa ñu xaw a gëj daal si site internet yi ak télé yi. Mhm. waaw sëñ Issa temps yi dañoo gis nga sànni benn message bu ndaw ci wat si kii bi si euh, TikTok bi gars yi commencé sëñ Issa sëñ Issa parce que depuis bi nga defee affaire boobu noonu gars yi def dañ si commencé di gis njëriñ. dëkk bi yëpp di laaj affaire bi nan la nan la moo ko dugal gars yi naan sëñ Issa sëñ Issa sëñ Issa baat boobu lan la ba nga xam te ne moom moo indi wax jooju yëpp. waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu boo xoolee man maa ngi ko defee fii si néeg bi muy baat boo xam ne dama ko def ngir baaxee ko jaam yàlla yëpp àdduna bi yëpp maam fu julliti yàlla mën a nekk rek ma baaxee la ko loolu nag bañ koy def dañ ko defoon ngir def ko si misaanu xasanaat maanaam def ko maanaam ngir jaamoo ko yàlla moo waraloon loolu muy baat boo xam ne mu ngi nekk sootu wal fajiri benn baat la ñu nekk wax kallaa isaa dukkati kallaa isaa dukkati moom laa joxe woon maanaam képp yaakaar muy tas lo yaakar do si jot wala buñ la diggé do si jot wala sa yaram tilim wala nga am jafe-jafe am ay galancor yu démé non nga bindu ko 99 vingt dix neuf fois ko bant bale bale bi day nek bale bu bess dég nga baxal safar bi ko sango ñetti fan lo yaakar yalla mën la ci jappandal li la dugulon cioli bari lol cioli bari na lol waye bari na ñuko def ngi si résultat trop audio yaangi sama téléphone tay rek am nañu ñoom Siteu ñoom ñëpp euh, déglu nañ audio yi ñee ngi Gambie ñee ngi Niger ñëpp biñ ko defee dañ ci gis résultat léegi nag loolu man dama ko def ngir jaamoo ko yàlla waaye defuma ko ngir si xaalis defuma si ngir ut dara dama ko defoon ngir jaamoo ko yàlla léegi nag si biir def gu ma ko def am na yenn sëriñ yoo xam ne sax dañ maa woone ma lu tax loo xam ne nit ñi war nañ ci mën a fay ay millions wala xaalis bu bëri di ko joxee noonu gratuite ma ne nag dama ko def ngir jaamoo ko yàlla. si loolu nag laa bëggoon ñëw parce que en général sëriñ yi. nga xam te ni da leen di gis ñu bëri ñoo xam te ni ñoom duñ duñ maye ay baat yoo xam mën na la defal dara en général da ngay ñëw. nga fay ñu jox la baat bi nga xam te ne moom ngay jëriñoo yow nga ñëw rek maye ko noonu quoi loolu tax affaire bi nag di jaaxal ñu bari waaw alhamdulilahi rabbil alamin koo gis muy ragal a maye lam yor moo bëriwul ku ragal a maye lim yor moo bëriwul gis nga yàlla suñu borom lu tax muy dëkkee maye lim yor darul jeex moo tax su yàlla sédd na la lu bëri nag ci xam mu leer na lii yëpp mënoo koo jariñoo dee ko génne di ko baaxee jaamu yàlla yi baaxee bi nga koy baaxee jaamu yàlla yi loolu ak jaamu yàlla la moom tiyaaba yi si nekk kenn xamu nu mu toll ñaan yu la si jaamu yàlla di ñaanal kenn xamu nu mu toll ndax benn sëriñ boo xam ne mën ngaa toog xaddam bi yëpp da ñëw si yow di la di la ñaan loolu xamul fenn da ngay fexe nag ñi nga xam ne mënuñoo jot si yow nga baaxee leen loo xam ne suñ ko defee jariñoo ko yow nga am si tiyaaba man loolu kese moo taxoon ma def ko waaye alhamdulilah bi ma ko defee kilifa gu nekk woo na ma façon kilifa gooy xalaat woo na ma ñaanal ma ne ma lii am na solo macha allah loolu rek laa si jubloon. waa mais sëñ Issa fan yii nga fan yii nga gis nii dëkk bi tàng na trop trop trop si wàllum politique bi ni ñaa ngi def ay choc accident bi fii ni ñaa ngi dee même ba si tey bi nga xamante ne tey dëkk bi mi ngi tàng jërëf mm-hmm. foo foo gis gars yi ñu ngi sànnante xeer. ensemble bi ba léegi nii ko loolu loolu na la mën lan si sëriñ mën a wax ba nga xamante ne nii mënoon koo saafara ak ay baat yoo xamante ne nii mën na aar nit ñi. waaw alhamdulilah rabbi alamin coow yi moom bëri na lool dëkk bi tàng na lool képp ku si noppi nag danga nga nekk nitu diine waa nga nekk koo xam ne da nga yëngatu si diine waroo ci noppi ñëpp war nañ ci wax kenn ku si nekk war nga ci wax wala nga ñaan ci yàlla yàlla indi si ndox mu set ndaxte li may gis mu ñëw ci dëkk bi nii di musiba kese la. te dara warulu lu nag lu aduna rek moo ko waral ndax nit ñi jam jëm ci yàlla waaye dañoo daw jëm ci jiro. moom jiro ñuy jiiroo xam nga jiro aduna dafa métti bo jiro aduna do ànd ak sa sago li ngay xool rek mooy nan lay def ba am aduna rek mo waral lu bari nit ñi di ko def ñaa nga rayante sacrifice yi bari na léegi accident yi bari na yaa ngi manam warante bi bari na lepp dal kenn mënu ko wax waye ne wax rek moy nañ def attention bu baax tay gis nga li ñew ci kanam ni moy gëna doy waar sa li passé ana li passé ni avant mu ñew bu mu déssé 1 mois amna journaliste bu mag bu liggéey ci télé bu mag fi la ko bam ñew ma wax ko li war xew yépp mom du ci wédé dara mën na leen wax télé bu nekk wax leen kan nan la tudd waaye damay nekk bam paré pare ma wax leen kan la bi ma ko waxé mbir mi bi mu ñëwee ci dara waaye fi jamono toll ni su fekkone mamam maamam mi dañ def ay sarax manam jaglel ko manam rew mi ndax rew mi am dal rawatina ki nga may président wala wala ñu seuss ci mom ñom ñu def ko ndax dal mana am ci rew mi waaw su ne président mënu ko def ben doom adam, bu nekk ma nga lay digal nga sarax li nga ne sugar nga wut sugar ñet kilo sugar, nga sarax ko aussi nga bolé ko ñet kilo mbur nga sarax ko legi su mënu ñu def sarax yoy ñu def ay ñaan kam ñu def basmala 787 waaye ñu def yaa salaamu trois cent soixante onze ñaan yàlla wàcce jàmm maam si dëkk bi ndaxte jàmm fii la lépp xaj li ñaan war toq fitnatan laa tusibanna allazina salamu minkum xaasatan ña ngeen moytandiku fitna ndaxte fitna bu ñëwee du yem rek ci ki nga xam ne moo taal fitna ji waaye fitna ji mën naa law ba yegg si ki nga xam ne moom yoonam nekku ci moom moom laalu ci dara kon nañ moytandiku fitna bu baax a baax waaye nañ ñaan yàlla dëkk bii ak réew mi yàlla def fi jàmm ak dal ak salaam lu ko mooy rek li ñëw ci kanam dina doy waar trop dina doy waar trop te gis naa ci nag ay dee yoo xam ne dina bëri rawatina élection yi ñuy jëm moo ne bépp ndaw loo xam ne mu ngi ci di di politique na nga bàyyi xel bu baax na nga ut gàllaaj wala nga ut tul nga takk ko wala nga ut ay muslaay nga def ko lu ko mooy maanaam dana doy waar daal. parce que en général loolu laa dégg ni ñuy wax nan daan naan képp ku nekk ci politique bi mm. il nga aar sa bopp sinon boo aar sa bopp moom. bu deful ndànk yow yaay saraxu euh, kii bi quoi. moo tax bëri xam nga am na si ñoo xam ne boo ànd ak ñoom te amoo gàllaaj sax yaa ngi saraxe sa bopp yaa ngi day da sa bopp te yëgoo ko am na ñoo xam ne kese du ànd ak ñoom bay ànd ak ñoom da ngay aaru ñagu ba pare door a mën a ànd ak ñoom ut gàllaaj aar sa bopp ñag sa bopp xam ne kenn du la mënal dara loo ko may da nga tay sa bopp képp kuy ànd ak daal ku mën a doon homme na nga jug sa bopp loo ko mooy maanaam dina dina doy waar te dee yi dina bëri nag mais ku bëgg sa gàllaat googu est-ce que mën na ñëw seet si sëñ Issa. waaw man képp ku ak ku mu a doon boo ñëwee ma baaxee la loo xam ne soba yàlla musiba lu rëy rëy yow moom doo ko fekkee am xeex boo amee sax yow doo ko fekkee. moom la ñuy wax wuute quoi. waaw moom la ñuy a ko def it maanaam coow lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri ak lu mu rëy rëy rëy yow dañ dagay nettali rek léegi mën ngaa dem rek coow li commencé wala nga ñëw wala nga ñëw ba dem coow li wala ñu dañ la koy netti rek waaye doo ko fekkee bi laa yem jëne parce que en général dañ am ño xamanteni ñom mënu ñoo tak téré quoi légui ñu mënu tak téré est ce que mënu leena jox safar bo xamanteni mënu ko sango pour protéger sen bop su go koo mënu tak téré bu ñëwee dañ koy jox sangat bu ko sango ben yoon la koy sango ay taxaw ci ben doj bu dëgër sango safar ci ben yoon ay bu koy sango guddi lay doon bu fay làmp do am ben lumière mu sango ko soko sango dara du paga du fetal du nit du lamine dara mënu da dugg ci aduna te da ngay aaru bi laa yoon diini hmm. kon daal ku si bëgg daal mën nga ñëw sa waaw ah, ku boo ñëwee jaamu yàlla yi dimbali la ci amul benn problème ñun moom buñ sañoon àdduna bi yëpp ñëppay nekk si jàmm ñëppay nekk si jàmm fitna du am coow du am xay du am musiba du am la la ñaan ñun loolu la ñaan yàlla yéene ko bépp doomu aadama ne ak kum mën a doon muy jullit bi muy chrétien bi muy làkkat bi muy kum mën a doon rek ñoo lay yéene yàlla defal la jàmm mais sëñ Issa temps yi dafa am lu xew si dëkk bi da ngay gis xale bu ndaw boo xam te ni day takk jabar hmm. mais du ko mënal dara dara dara dara loolu lan lan moo koy def si nit. waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu bari na loolu dafa bari léegi rawatina ci ndaw ñi nag ndaw ñi sax ci la gën a bëree takk jabar te mënaloo ko dara to en général foo mu bëri moo waral loolu am na ñoo xam ne foofoo ba jeexal takk moo waral tey mën luñu seen jabar yi dara am na ñoo xam ne dañoo am feebar naturellement boo xam ne dafa ànd ak ñoom muy feebar néew kàttan am na ñoo xam ne dem nañ ba nekk mag am nañ kàttan waaye seen kàttan dafa wàññeeku. kooku loolu loolu am na waaye bu mu si mën a doon si yooyu dañ koy saafara te maa ngi si yor garab yoo xam ne sunguf la lenn sunguf lay doon lenn lu ñuy naan lay doon soo nekkee xale soo ko naanee dootoo tële bi laa yom diine su fekkoon ne benn ngay mën a def si guddi ki yàlla mën na la dimbale nga def ñett waaye nag dañu ne boo mënee ñett bul def ñett chaque jour mm-hmm. da ngay def benn wala nga def ñaar waaye man ñett da nga ne xaaral bët danaa def ñett ah loolu moom duñ ko garanti kenn moom waaye da am na si bagage yoo xam ne mu ngi fi képp ku ko laal di nga xam ne laal ngay bagage moom su fekkee mag la boo xam ne dem na ba am 60 ans wala 70 ans mhm. su ko jëlee maam yàlla dana ko dimbale ba mu amaat kattan am na si boo xam ne dañ ne sa sàkkara bi su fekkoon ne dafa dee lu man ñetti at yoo xam ne jugut keroog jour bi nga ko naanee incha allah rabbi day jug te loolu am naa si ay ay ay ay mag ñu bëri ñoo xam ne ay mag lañ xam nañ li may wax bu baax. boo xam te ne waaw bu ñu ko defee ñoom ñëpp a sant yàlla yoo xam te ne waaw mën nga koo dundalaat quoi comme ni nga koy waxee. waaw su fekkoon dafa dee maam sàkkari bi dafa dee lu mat ñetti at yoo xam ne jugut benn yoon mhm. su ñëwee fii ma jox ko loo xam ne benn yoon la koy naan te ay jours du def ay weer pour pour mu mën comme comme comme du traitement doon traitement benn yoon la koy naan benn kese waaw benn yoon kese la koy naan incha allah rabbi tàggoog moom kuñ takk xale nag yooyu waaye kuñ takk xale si bis bi laa koy teg takk xalaat si la kay tek legui lo dafa bëri da nga gis ño xam te ne dañuy bokku jigen jek mm. jek ni mm. keneen ki takko rek ñu takko xala ay kuñ mëna a xala ak ku mën a doon mm. si la kay tek amul ñaari fan da nga ñew tok ñuma tek nga dem sa yoon wa legui euh, kon gaay leer na ko ko xam te ne nii nan la xala mën nga ñew ci sëñ isa borom jaas ji inshallah neena ci na si bis bi incha allah la la koy dindil même bu fekkee da nga new katan manam ya xam da nga doon fooye sa bop ya xam da nga kaa dab boo ñëwee sëñ Issa incha allah dara la ko saafara léegi euh, sëñ Issa ñu demaat si ñi nga xamante ne nii dañuy dañuy noot seen jëkkër yi est-ce que la ñooñu mën nga leen a saafara. koo xam ne day. ñoom dañuy dañuy jël dañuy noot seen jëkkër yi ba nga xamante ne lu ñu ko wax mu wax waaw. Mm. lu ñu wax mu wax déet. Mm. sëñ Issa mën na dindi lool en plus est-ce que sëñ tamit mën na. def noot tamit. loolu am na su fekkee ne yow. yow miy góor dañ laa noot. jigéen dafa noot ba loo lu mu la wax nga def ko. Mm. lu mu la sant nga def ko ba àndoog sa sago lol soo ñëwee dama lay jox lo xamné dang danga sango ñetti fan tàggoog moom tak buñ la mësa tak wala fuñ la mësa sul wala luñ la mësa saf day yaq wala kém nit mënu ci dara donte dañ ko def si armel mo xam ñu tak ko ci kaw garab wala ñu sul ko ci suuf wala ñu saf ko boko défé ñetti fan nga tàggoog lol té bëri na ñoo xam ñoo ngi dem waaye demu ñok seen xel. dañoo mel ni ay mbaam rek ñuy jiital la ñuy def leen neex. ñaan dafa ñàkk fayda ñaan dafa ñàkk fayda ah. fekk ñàkkut fayda. waaye dafa am loo xam ne dañ leen koo def su neen ko defee dootuñu ànd ak seen sago. léegi bari na jigéen ñu bari tey loolu boo gisee tey parce que euh, Sénégal kër goo dem laajte ana góor gi ñu ne dee na man borom kër gi booy laajte ñu ne dee na lu ko waral noob yu bon yi ñu leen jox ñuy naan ak sëf yu bëri yi leen sëf te ñoom duñu ci xam dara lii ñu koy def si lekk yi ñuy lekk ñu koy def si soow ñu koy naan seen biir yi di funki ñuy feebar ba xey rek de lol moy waral lol bari na keur yu bari bari bari seen borom keur de na te jigen ñoo leen ray mais yow en général yow seigne isa est-ce que yow mën nga note yow mën nga def note wa man damay def note damay def note note note waxon na ko si ben émission waxon na ko infirmier vrai naa serigne bu ko mënul na dem bay ji lol moy li gëna a yomb manam nop nit ak tas xir nit moy li gëna a yomb serigne bu ko mënul maa ngi koy na dem bay ji la wax maanaam nga fexé ba tas xir nit boole ñaari nit sëriñ bu ko mënut mën naa bàyyi ñaan dem ba dem bay ji dañu loolu ba ñuy nekk si daara ji loolu lañ njëkk a man kon sëriñ bu ko mënut mën naa dem bay ji ku mënta boole ñaari nit loo man jëkkër ak jabar yoo xam ne dañoo nekk si problème mënoo leen a boole ñu nekk si jàmm yow ko baal ñaan loolu mooy li gën a yomb si ñaan comme ça lu ñuy wax primaire mooy primaire rek si ñaan hmm. ci lasra loolu mooy primaire sëriñ bu ko mënul rek na dem na dem bay ji ba waaw loolu mooy li gën a ndaw mais da ngay gis en général bi ñoo xam dan ne nii dañ dañ leen a liggéey ba nga xam te ne nii bu ñu sax dañu mel comme seen boutique leen gis man dañ leen a dëddale quoi. est-ce que ah. loolu la ñuy wax tafriix. tafriix tafriix la tudd moom la wax tafriix moom la wax teqale. Mhm. wala dëddale ñaari nit am na ñu koy def waaye man de duma ma ko def. mais yow bu fekkee def nañ ko kenn est-ce que man mën nga leen a boole man duma ma ko def waaye suñ ko defee nit mën naa ko dindi si benn fan. su ma isaabee turu turu ndaw si ku ku jigéen ki ak turu ku góor ki dama ko isaab boole ko benn tur liggéey ko wax ko mu saraxe su saraxee la muy saraxe mu dañ su fekkee ne loolu mënta nekk ba tey am loo xam ne dama koy bind nga sangoo ko soo ko sangoo mu dañ boo koy sangoo si sens muy dañ waaw ndaxte dafa am gaa yoo xam ne dañuy def tafriq mooy dëddale si karawu xaj ak karawu muus xam nga muus xaj ñoom ñaar duñ daje fenn ñoom ñaar dañ ko ciy def ba pare daal di ko lakk wala ñu suul ko am ñoo dañuy jël nen def ci liñ ciy def dem suul ko si armel nen bi nebee rek ngay gis coow li commencé bëri am na ñoo xam ne seen dëddale yi ñuy def dañ koy def maanaam si suufu ci foo xam ne day tàng comme waañ boo xam ne toujours day tàng fa lañ koy suul buñ koy suulee bu ñuy taal bu tàngee rek coow li jóg bu taal bi rek nga gis ñu nekk si jàmm or su tàngee coow li am na ñoo xam ne dañ koy def si ànd si suufu ànd bi lañ koy def yaa ngi dégg di si def xal muy tàng bët bu set su ko defee di ngeen nekk si jàmm di ngeen nekk si salaam loolu mooy waral loolu léegi nag loolu ku mu daal muy góor muy jigéen soo ñëwee ma dindil la ko lu ci gën a bëri ñett fan la waaye daal benn fan daal si la si la ëpp si la ma koy dindal waaye gën caa bëri daal ñetti fan ñetti fan nga teqalikoo yéen ñëpp ngeen nekk si jàmm su fekkee nag kër goo xam ne ñëpp dañee dañoo dañoo teqalikoo kenn du wax ak sa morom hmm. loolu li may def dama koy def maanaam def ko ci lekk ñëpp lekk ñëpp nekk si jàmm wala ñu def ko ci ndox ñëpp naan ko ñëpp ànd nekk si jàmm ba dëkk boo xam ne sax dañoo juyoo dëkk boo xam ne mënuñoo déggoo mënuñoo ànd suñ ko defee dañ koy def si robinet bi wala ñu dem si forage bi def ko fa dëkk bi yëpp ay bëggante dëkk bi yëpp soppante ah, boo bu njëkk mag ñi dinaa def ay ndaa ay ndaa moo amoon saalum bu njëkk ndaa yooyu daan nekk ba guddi ñu bind li ñuy bind def ko ci ndaali bu ko dee ñëpp naan ci hmm. buñ ci naanee ngay gis ñëpp dañuy bëggante dañuy soppante nekk benn waaye léegi loolu amul lan moo am ay frigo kenn ku si nekk yor sa guttu ndox di ci naan moo tax teqalikoo bi bari am na ñoo xam ne sax añ añ bi ñuy añ wala reer yi kenn ku si nekk bu guddee da ngay dem jënd reer yaa ngi dégg yooyu nag lu ko waral lépp nag lu dara lu dul saytaane moo dugg si doomu aadama yi nit ñi teqali ko waaye su fekkee kër goo xam ne dañoo teqali ko nekkuñ si jàmm nekkuñ si salaam su boobaa la ñuy liggéey dañ koy liggéey mu fexe ba togg ko benn soos wala mu togg ko laax ñëpp lekk ci su boobaa ñëppay bëggante ñëppay soppante te yàlla te xam nga loolu jaamu yàlla la ñun nag loolu la ñuy def waaye duñu teqale diggante ay nit dégg nga waaye képp koo xam ne dañoo teqale sa diggante nit soo ñëwee ma saafara ko ni ma sëñ Issa dafa aay si Modou Modou sama mbokk Modou Modou yi nga xam te ne dañoo am problème mu kayit ñu sëñ Issa dafa aay ci loo xamante ni bis bu la ko defaree am kayit da yomb foofu naan waaw loolu moom am na moom kayit moom nee naa la maa si toog ma am ñaanal nit kayit mu am ko loolu maa si toog képp koo xam ne yaa ngi may gis sax xamee ma xam nga ne loolu maa si toog yàgg naa di si ñaan ba ma ci ñaan kenn xamul kañ la te li ma ci ñaanee yëpp nag si yaasin la nekk hmm. waaw si yaasin nekk képp ku soxla kayit. wala mu soxla ay papier mu të wala mu bëgg nationalité foofu mën a nekk su ñëwee fii ma ñaanal su ma ko ñaanalee incha allah rabbi. mais ñi nga xam te ne dañuy nekk fële ñoom mën na noo nit. nga defaral leen ko ñu dugal ko comme gars yi ni ñu yóbbee bagage yi ay Europe ak yooyu pour ñu jot si wala moom il foo que mu ñëw. déedéet am loo xam muy ñëw. ndax man ñi may ñaanal ñu si bëri sax. ñëwuñu ñi damay bind rek lu may bind posté leen ko ñu jot si am ñoo xam ne sax du bind jox leen fii laay toog génne sama kurus. Mhm. téye leen laa la semaine semaine semaine laa la may kii dinañ la si wax lu leer su fekkee mosoo déposé nag da lijjanti kii yi nga war a lijjanti ba pare bala nga ko déposé nga woo ma am na chiffre yoo xam ne moom rek laa soxla si kii yi su ma si xasee ba jot boole ko yenn tur yàlla yi ma ko war a boole wérdu ko foo dem déposé kii dañ la may kenn du ko récité fii laa yemi dine moo xam fii nga nekk Sénégal moo xam beneen réew moo mën a nekk ñu bëri ñu may seetaan loolu xam nañ si dara waaw li ma la si dara waaw mais bu fekkee ñi nga te bëgg nañoo déposer pour ñu may leen visa est-ce que bobu tamit mën nga mën nga leen sé defal ñaan. Ah, loolu mo gëna yomb loolu mom moy li gëna yomb moy li ma la waxon sank rek amna na ñaan yo xamne sëriñ bu ko mënut na bàyyi ñaan du sëriñ ta la sala ta ñaan nga soxla dara manam si ambassade bi nga xam ambassade bi nga wara dem xam ambassade italy wala ambassade France wala ambassade amerique ki yor na passeport yor na ay dossier ñew jox la xamoo li nga wara ñaan kon baal dossier buñ ma mëna jox muy passeport bi amna chiffre yo xamne mom la ci si soxla sama ma ko xasee ba am ñaan ci limay ñaan wax la sarax yi nga xamne ne kay sarax yow ya kay saraxal sa bop bis bi nga wara dem ma jox la li nga xamne mom la lay jox so démé kën du la récité am rek. am rek wa ñu ma ko mas a defal ñëpp am. a général man lepp luma yor diga ko muy auto muy téléphone ñuma ñaanal ñoma ko jox ci côté bop rek lay doon kon daal loolu moom du dara. loolu mooy li gën a yomb la sëriñ bu ko mënoon a baax. mu ngi mel ni kam ñaanal nit ma am examen. ay bac ay BFEM. yooyu sëriñ bu ko mënoon mën naa baax ngi dégg. ñaanal hmm. nit pour ma am kayit sëriñ bu ko mënoon mën naa ñaan. yooyu te yooyu mooy yi nga xam hmm. dafa yomb dafa yomb mooy soxla la rek nit am soxla bu të rek. wala ne la ñaanal ma si soxla nangam kayit mooy soxlaam xam nga ne kayit mooy soxlaam. Hmm. dafa am noo koy ñaanale te nit ki nag en général boo xamoo boo xamul rawaanam xamo xuddaamam pour nga ñaanal ko day nekk problème ñu ci bari nak xamuñ kamu xamuñ xuddaam xamuñ heure bi ñu war ñaan mo dana dañuy tandas boy tandas nak man nga dal man nga ci ñak dal kon nit ki da nga wara fexé ba xam li ngay def ba heure suñu la santé ñaan nga xam li nga wara def manam nga xam fan nga wara jaar li ngay def pour mu soti ñu ci bari nak tay ñaan way li ñaan xamuñ ko de xamu yoni ba dañuy rek dañuy rek tandas baxu nit du tandas nit manam da ngay am yaqin ci li ngay def yaqin ci li ngay def na li la koy may moy jaamu yalla waye ragal yalla waye selal li ngay def ak nak xamne ne li ngay def ni yalla mo tax na nga diga def waye nga dawal ci yërmande loy may waral bo ñaané yalla nangu te aussi ñu baña lek lu haram baña di fen bañ di moy yalla nit bu moy yalla di lek lu haram mëno ñaan yalla muy nangu yonte bi wax nako ko bépp bépp yàpp woo xam ngi dundé lu haram di lu haram yaa ngi dee lekk lu haram kooku bu ne allahuma yàlla danaa ko déedéet kon nit balaa mën a ñaan ma nangu il faut nga teet sobe yi teet yu boni teet yu xaraam yi boo ñaanee yàlla nangu ndaxte yàlla soriwut yàlla wax na ko wa isa saala ibaadaani fa inni xaribun ujibu daawata daa isa daani fa yastajibu lii wala yàlla alam yursudun man yàlla damaa jege su fekkee woo nga ma xuyu kon nag fi ngay woo mu lay xuyoo dafa am différence a tey bu nga ma soxlaa di ma woo soo ma wooyee sama numéro da nga may jot waaye suivre sama numéro yi boo ci bàyyi benn doo ma jot yàlla yi noonu la demee dafa am yoon yooyu jaar boo ko wooyee mu wuy la am na yoon yoo xam ne boo ko fa jaaree boo ko fa jaaree boo ko wooyee du la wuy noonu la demee. waaw sëñ Issa ba léegi nii maa leen di fàttali ñu ngi ànd ak sëñ Issa Ndiaye borom jaasi ji mën naa ne kenn dootu ko présenté mais gars yi ñoon doon topp il faut que ñu jamaat jëli ko parce que xam naa ne dafa nëbbatu.